Allah sëñ Abdoulaye Fall Ndar jeurinam ji ko fa nekkal tay muy Serigne tala mom sëñ Abdoulaye Fall Ndar ngi ñaan suñu borom mu ko fa yàggal bu baaxa baax te dolli ko ak wër waaye ñu ngi fi ci wañu na fekk fi kenn ci jeurin bi muy sonna Daba Sall sonna Daba Sall euh, euh du mourid bu ànd ak Serigne tala ci liggey bu tedd bi muy liggey maam Cheikh ibrahim Fall mourid dina waaye ànd koog nag mboolem euh, jëwriñu waañ yi yëpp xam naa dinañ dëkk ci ñoom soxna Bintu Ndiaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk euh, ci liggéey bi xam ngeen ne ñoom nag waxtu wi day fekk lépp noppi ci ndog yi ndax euh, xam ngeen ne saa boo xamante ne bi rek noppi nañ ci ndog yi ba yàq Serigne Talla da ko yenu ànd ak njabootu si Abdoulaye Fall Ndar gi yóbbul ko ki nga xam ni mooy jëwriñam di kilifaam di Serigne Cheikh Jëmm Fall di magam waaye mu jël léppam jox ko ñu bokk wenn wayjur nag nga xam Serigne Abdoulaye Fall Ndar Serigne Moussa Fall bokk lépp Eh, te it ku ne xamne takko gi nga xamne ñom ñaar takko won nañ ko eh, suñu taara yit jëlaat lepp jox magam ji di suñu suñu Cheikh jëm eh, jital ko ci liggéey bi top ci gannaawam ay and ko mbolam njaboot suñu lay fandar Ndar gi kon xamna naa soxna Daba rek su ko defee nga wax nu naka ngeen di taxawoo liggéeyu ndog yi fi ci wañu wañu waañu taala mu suñu lay fandar allahumma salli ala sayyidina muhammadin seen jibril ma ngi lay nuyu sa teewaay te di ko rafetlu ak sop go sop Cheikh ibrahim ñu di cant gi ñu di ko tàmbalee ci soxna Roqee Mbay mi nga xam ne moo ñu yar wëlbatiku joxaan ñu sëñ Taala ak ñaanam ba tey ma di ko seet muy dox ci sama deret ma di ko ñaanam mu yàgg fi te wér sëñ Taala Faal mi it lii mu am du sens merit la ndax dafa toppe ba am ko fakkastalul kenn xeebul kenn ku ne ñor dina taf la ci sa kaw te lepp ak oya fa ma tax ñu ñaanal ci doole Cheikh Ibra ak doole seigne Ablaay lu mu bëgg ci yoonu mamam bi rek yalla na ko defal. te di len siaré ci atum dar fal bi ëtt bi di at seigne Ablaay fal Ndar ñu fi lool ñaan nak Cheikh Mortala fi lool te and ak ndax xati na njabot gi. uuf na ay rakkam uuf na taalibe yi uuf na ñëpp soxna yiit nag soxna yiit ñu bokk na ci waañ wi di liggéey nag te liggéey bi rafet lool ndax soxna yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay àndandoo kenn ku ne takk sa ndig soxna Bintu Njaay mii ar bu xëyee mboolem lu jëm ci cin yi soxna Bintoo koy séddale séddaleen bu rafet te dal gu rafet ndax euh, jiite njaboot métti na sàkkaa njabootug jigéen waaye am nañu dal ba du nu jànni kenn du rësati kenn ànd noog ñëpp. asalaamaaleykum ñi ngi siyaare bu baax a baax sëriñ Mamoun di nuyoo di sant di santaat di sant Cheikh Mortala di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi te wér di ñaanal sëñ Cheikh Jëmm Fall mu yàgg fi wér ak njabootu maam Cheikh Rahim Fall gépp rek sun xol sedd na bu baax nag ci yow bu baax sant Cheikh Mortala bu baax sun xol sedd ci moom. lii nag tey duguleet ci yow duguleet dañ lay ñaanal jàmm rek nga gën ko man dem ànd ak wér gi saa boo ñëwee itam fekk ñu fi ndogu yi nag gis nga ni muy doxe ñëwoon nga daaw daaw fekkoon euh, li fi amoon waaye lépp suñu borom teggi na ko ci kaw jàmm tey jii mbooloo maa ngi nii macha allah kenn maa ngi wut teel a xëy ci ndigal li nekk ci ndigal ba wàcc ci ndigal ci barkib Seex Mor Talla yaaram géey mais moo fiy njiit di soxna sëñ taala su mag yimpaañ daba sall topp ci fajar 6 heures de matin lañ fi ñëw waaye bu ñëwee fi lañ leen di fekk dong yi nag ñëpp a doon benn di teel a xëy si nekk ci ndigal li saa bu xëyee man maa ngi ubbi magasin bi joxe ndugg mi maag sëñ xaadim ndooy ñu nekk ci sëñ taala jox ñu ndigal li ñu nekk ci dara manqué wul nag sëñ taala muy ku nangu ndigal ku baax ku oyof fonk ay kilifaam fonkoon sëñ Mourou Ablaye Fall Ndar jàmbaar ja nag def ko muy yoonam buntub kër sëñ Ablaye Fall Ndar sëñ Talla mos a wax lu sëñ Mourou Ablaye waxut tey jii nii sëñ sëñ Mourou Ablaye Fall Ndar wuy ji boromam mu toogal fi Cheikh Ablaye Fall Ndar tey ànd ko ki rakkam sëriñ Fallou Baye ak sëñ Mamoun ak sëñ Mourou Anta ñoom ñoom ñëpp ñu fi la ñuy yendu jigéen ñeet bu ñu xëyee soxna Jee Fall soxna maam sa ñoom ñëpp waa Kassim Laay Fall Ndar gépp fi la ñu yendu sëñ Modou Fall sëñ Jiili ak rakam saa bu ñu ñoom ñëpp fi la képp ko fi amun yitte dagg nga sa yitte ànd koog dongo yi liggéey liggéey bi ngir say xirba ak sëñ Ablaye Fall Ndar ak sëñ si jëm Fall. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu topp ci biiram ak ci bitim réew noo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar di leen nuyoo fii ci Mbàkke fii ci péncum Paaleen Euh, fii ci kër Sëñ Abdoulaye Fall Ndar euh, tey jëwriñ ji nga xamante ne bii moo ko fi wuutu euh, taxaw liggéeyam bu tedd bi muy Serigne Talla Fall moom Sëñ Abdoulaye Fall Ndar ñi ngi ñaan suñu borom dolli ko fa yàggal bu baax a baax te dolli ko wér xam ngeen ne niñ ko toppale ci mboolem buntu kër njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu ndog yi xam ngeen ne weeru koor saa bu jotee mboolem ku di Baye ku nekk sa yitte ak sa pas-pas lépp mooy togg ay ndogu yóbbul ko ki fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim niñ koy defee ci mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi noonu lañ koy defee ci mboolem noonu lañ koy defee fii ci kër Serigne Talla Fall moom Serigne Ablaye Fall Ndar xam ngeen ne liggéey bu tedd bi euh, Serigne Ablaye Fall Ndar mooy ki nga xamante ne bii euh, togg na ko ci ñaar fukki at nag ak lu topp ndax ku ne xam na ne 1953 bi nga xam ne Serigne Momar Talla Fall euh, wàcc ne liggéey Serigne Ablaye Fall Ndar moo wuutu maam Cheikh Ibrahima Fall ba 1975 kon 1953 ba 1975 yëpp ma koy togg ay ndogu xam ngeen ne ak mujjëm sax nag jamono bi nga xam nga wàcc eh, ndog yi yëpp yëpp xam ngeen liggéey bu am solo lañ ko fa liggéey muy lool eh, eh, rak mboolem rakkam yi ak mbooleem gi ànd ak moom liggéey bu tedd boobu mu koy togg di ko yóbbul Cheikh Mouhamadou Fadal waaye Serigne Ablaye eh, ci liggéey bu tedd bi nga xam ne liggéeyal na ko maam Cheikh Ibrahima Fall Baye bi nga eh, mujj bi mag ñi wax nañ ne moom mooy mook Serigne Bassirou Fall magam ñooy ñu ko jiite woon 1918 ba dellusiwaat eh, am mag nee ma keroog bu ñëwee Serigne Touba leen di xel ci at ci loxol boppam attaaye nee na keroog bu mu nee Serigne Ablaye Fall Ndar dama rus ndax ku toll ni sëñ Tuubaa di ma sëñ Abdoulaye tamay doomi taalibeem rek nee na la ma ku tedd ki waxee na ma ñooñu ngeen àndaloon di leen liggéey ñu eh, eh, gërëm maanaam mooy kuñ noppi ci yow ba di la mosal tuut tuut ci seen wërsëg nuñ ko tuddee sëñ Abdoulaye nee na ma ne ko xanaa à la traité mu ne yegg naa fa yéen nee na leen des ci seen dund yëpp ci seen bénéfice la ku faat mu dugal laajana loola mook Cheikh Modou Fatma la ko boole woon ci soldaar su mujj sa sëñ Modou liggéeyub sëñ Ablaye Fall Ndar bi yàlla dogalee tey nag mu bàyyi ko ak Cheikh Modou Ablaye Fall xam nga ne jàmbaar jooju nga xam ne kenn du ko fàtte mu liggéey liggéey bu am solo di jàmbaar mat sëkk sëñ Ablaye Fall Ndar sans mu jël liggéey bi teg ko ci loxol Serigne Talla mi tey mu wuutu fi sëñ Ndar waaye muy jàmbaar joo xam ne ànd naak mboolem rakk yi eh, Serigne Fallou Baye gis nañ ko foofu léegi ku mel ne sëñ Maam Cheikh sëñ Modou Anta sëñ Abdou Gagne Siri sëñ Modou Mamoun mboolem njaboot gi yëpp sëñ njaboot sëñ Ablaye Fall Ndar ñoom itam ndeysaan eh, ñu taxaw sëñ Talla ci liggéey bu tedd bi ba ñi nga xamante ni bi sax ñu ngi ci tukki yi nag waye sa seen dara du du manqué bés bu yalla sak seenu njabot ak seen adiya ngi ñew ci seen mag ju bax ji nga xamanteni bi mo jitté liggéey bu tedd bi di ñaan yalla mu yagg ci loxom xamna dañuy and sëñ Abdou ndjay rek dugg xol wañ wi eh, xol jëwriñ yi su ko di def waxtaan ñu laaj ñu laaj ñu eh, li nga xamanteni bi mom lañuy taxawoo liggéey bi fi melni dañuy téle xey Euh, bu ñu teelee xëy itam dañu ne ci liggéey bi rek euh, ba waxtu wi jot ñu yóbbul ko ki nga xamante ni bi euh, mooy Serigne Cheikh Jëmm Fall di fàttali ne sëñ Taala nag sëñ Cheikh Jëmm mooy jëwrinam moom lay jox ay ndogoom su ko def sëñ Cheikh Jëmm nag daal di dajale ndog yëpp yóbbul ki nga xam ne moo fi Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamadou Mountakha Fall moom Serigne Abdoulaye Fall Ndar nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi fi daje yépp ñoo ngi leen di siyaare te di leen nuyu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi fi nekkal Serigne Touba di ñaan sama borom yàggal ko te wéral ko. mu yàgg a jiite liggéeyub Serigne Touba bi te ñu ànd ko ak moom di siyaare Serigne Cheikh Fall jëmb mi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla ko sama borom dolli ak wér te dolli koo yàggal te barkeel ab liggéeyam te taas ñu ci barkeem bu baax a baax a baax ñu ngi nuyu Cheikh Fall. mi fi nekkal Cheikh Abdoulaye Fall Ndar di ko siyaare bu wér a njabootam gépp ndax bu waxee njaboot gi rek ñépp dugg nañ ci biir waaye nag mu ngi génn ay tur mu ngi siyaare soxna Mbenn Fall di siyaare Serigne Modou Anta ak Serigne Modou Mamoun ay rakkam lañ te ba yëfi tàmbalee ba tey ñoom ñoom ñoo ko ànd ak mbokki taalibe yépp sëriñ bi nee na gis na seeni taxawaay seeni taxawaay rafet na sell na ndax kenn ku ne mbir mi yitteel na la waxtu woo xëyee rek danga koy def sa itte doon nangoo def dara lu dul loolu rek sëriñ bi nee na gërëm na leen sant na leen sëriñ bi mu ngi soññee mbokki taalibe yu góor yi ak yu jigéen yi di leen xamal ni seenub taxawaay rafet na lool sëriñ bi nee na bég na ci yéen bu baax a baax mu ngi siyaare sëriñ ndaa Mbàkke miy toog di ko xamal ne ko Fikar keur gi mbokk la fi ay talibem rek mo fi ne ñu ngi ñaan suñu borom yagal la te wéral la sëriñ bi neena ndog yi kat day ndigal lo xamne mam Cheikh ibrahim Fall ndog yi sëriñ Touba moo ko digaloon Cheikh Fall lola wacc ba ci Cheikh Abdoulaye Fall ndar. mu yor ko lu mat ñaar fukki at ak nangam ñëw ci taawam ba cheikh Mouhamadou Abdoulaye Fall yal na yàlla yokk ay leeram moom it sëriñ Modou Abdoulaye yor ko ñeent fukki at yu teg nam ko daan defee kenn ku ne xam na ni rafet na sell na mel na nam war a mel ndax lépp loo xam ne mas na koo am. def na ko ci ay rakam luñu massa am def na ko ci mbokk talibey lepp luñu massa am def na ko ci liggey nak bo déggee agn faaw da ngay wacc dogo agn serigne bi da wacc waye lu mu def rek def na ko ñu ngi koy ñaanal suñu borom yok ay leeram di len xamal na Cheikh mortala liggéey bi egsi ci moom li ñu weesu lépp de suñ xel dal na ci lool suñ xol sedd na ci lool ndax rafet na ànd na ak yéene liggéey bi paseefu na te it mbokki taalibe yi ànd nañ ko ak moom bokk ak moom ak bëgg bokk lu ñuy bay itam bëgg yépp dox ni mu daan doxe mbaa mu raw ko sax sëriñ bi neena na gërëm na ñëpp sant na ñëpp képp koo xam ne def nga ci sa dërëm yal na doon sa njotug ëllëg yowmal xiyaam ndax àdduna man ngaa jël sa alal def ko ci leneen loo xam ne du la jariñ waaye lii dafa doon ndigal loo xam ne dañ koo sant suñ kilifa sun kilifa di ko def kon kep ko xamne def nga ci dara war nga xamne seyef du yaqku du maxe du réer ndax mam Cheikh Ibrahima Fall min yakar jef jël rek la wax te jef jël newul mag newul rak newul gor newul jigen jef jël rek la wax ku jef ku di nga amuk pay ndax sun borom lip moko yor ku nek fa nga nek mo la fa tek te serign bi ñu andal diru bañ ak mom ak legi mu top cheikh mohammed abdullahi fall ay jéegoom rafet na sell na ànd na akuk njàmbaar ko bu wéré wér ñu koy ñaanal sun borom yagal ko te wéral ko nam daan wax rek nee na ko Cheikh Abdoulaye Fall Ndar de moo seet Cheikh Mor Talla ba nga mat ko mu teg la fi ku ko matul du la fi teg loolu la sëriñ bi daan wax moom la wax ndax ab liggéey kenn du ko jox ku koy yàq kon nag yow xam nañ ne taxawaay yi nga war a taxaw yaa ngi ci ndax ñi nga bokkal sëriñ Abdoulaye Fall Ndar yëg nga leen bu baax a baax jàpp nga leen bu baax a baax seeni yitte mooy sa yitte loolu nag wenn doxin gënu koo rafet te bu dee wàllu taalibe kenn mënu la ci kon nag ñu ngi ñaan mu yàgg sama borom lafal ñu cet te musal nu ci lépp luy doge ba liggéey bi mën a àgg ni ko war a àggalee tàmbali nañ ko nag ci bisimilah rahmaani rahim yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabil alamin te sa borom nangul nu jëf yu rafet yépp te barkeel ko te kenn ku ne li nga ci def yàlla na soo borom fulal lu ëpp loola te barkeelal la ko sàmmal la ko mu te bu mu ko duñ ko dugal fenn fu yàqu ñu soñal ko rajo Lamp Fall ndax Lamp Fall kat jeufi mam Cheikh Ibrahima Fall ndax fi bañu ko tambalé ba légui waxtu wu né ñu ngi jël si ay cadeau diko yobbu diko tassaré diko yaatal ci ñi nga xamné mënu ñoo ñew bañ xamné liggéey bi néna sëriñ Mamour yaag sa kilifa yi yàlla yabal muy rojo bi ak télé bi muy rojo bi ak télé bi sëriñ bi nee na sant na bu wér ñaanal na leen bu wér gërëm na leen bu baax a baax a baax na sama borom musal leen te aar leen bu baax te télé bi ak rojo bi kawe lool bañ man koo dégg fu ne tam sax lool ci dooley sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall. kon jëf ji rafet na lool sell na lool sëriñ bi nee na am na mbégte itam ndax fii mu ne ñi ko fii fekk si ay kilifa bari na te jëf ju baax noonu la mel bis bu yàlla sàkk sama borom day dalal sam xel dalay wan loo xam ne sam xel day gën a dal ndax boo dee liggéey ba borom liggéey bi ñëw teew wane na ne ànd na ci loolu sant yàlla la bu wér kon nag nañ sax ci ak taalibe nga xam ne mooy alal ndax alal ji nga xam ne moom la maam Cheikh Ibrahima Fall am moo di ak taalibe ak taalibe nag doone lii bokku ci lépp loo xam ne day tax mu mat mel na ne boo ko ci boolee mu mat bu ko nangoo jël boole ko ci li nga yor. bu ko bañ a jël boole ko ci li nga yor. ndax taalibe. weesuwut nooy nepp. nangu lool. nangu lool. te am fulla lool. ndax fulla daa bokk ci ak taalibe. bismillah murid bismillah murid